A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamaaleykum bokk julit yi ak bokk taalibe yi Dalen jam sen sen YouTube le Coran et ses secrets ñoo ngi ziar ñep, ñaanal ñep jàmm te di sakku ci yeen. tey dañ leen andil secret bu am solo lol sax bu nekk ci surat Fatiha pour képp ko xam da nga bëgg guddu fan da nga bëgg wër-gu-yaram da nga bëgg am wërsëg bëgg ubbeeku bëgg aajo bu faju ci batin ak ci zahir defal secret bu ñu waaja dëgmal incha allah waaye pour leeral mbokk jullit ji rek ñaan bi baye ko ci borom xamam bu yaatu bu ñuy naan oustaz abdou karim ba di nit ku bax nit ku bari xam-xam moko ko won woon mbokk jullit yi bu ko faté ñaanal yal ko yàlla borom may gudd fan te wëral cër laata ñuy tàmbali waxtaan bi di la ñaan rek bu leen fàtte abonné ci chaîne bi bës ci cloche notification bi bu ko defee vidéo bu ñu mënti dugal ngeen bokk suñu kenn jëkk jot yàlla yàlla fay wasalaam secret bi mbokk yi daa am solo lool moo tax di ñaan mbokk jullit yi képp ku ko xas ba jël na nga fexe ba saxal ko même donte bu fekkee benn yoon nga ko def ci weer bi boo ko saxalee incha allah di nga gis ay résultats yu am solo lool yu la yéem sax incha allah secret bi nag mbokku jullit ji da nga koy tàmbali bésu dimanche si guddi da ngay julli ñeenti rakka maanaam quatre rakka rakka bu si nekk nga jàng fatiha benn yoon nga jàng surat lixlaas juróom-ñaari yoon maanaam sept fois nga jël sa kurus def astafrullah téeméer maanaam cent fois nga def. allahuma salli ala seydina muhammadin wa téeméeri yoon soo paree nga def bisimilahi rahmaani rahim allahu yaa rahmaan yaa rahim ci limu 777 fois ci bësu dimanche bësu altine ci guddi maanaam lundi ci guddi nga def alhamdulilahi rabbil alamin allahu yaa rahmaan yaa rahim ci limu 777 ci bëssu ci mardi ci guddi nga def rahman rahim allah ya rahman ya rahim ci limu 777 ci bëssu mercredi ci guddi nga def maliki yawmiddin allah ya rahman ya rahim ci limu 777 jeudi ci guddi nga def iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahu ya rahman yaa rahim si limu 777 vendredi si guddi nga def idina siraatal mustaqim allahu yaa rahman yaa rahim bésu samedi si guddi mooy dernier dernier fan bi nga def siraatal lazina alamta alayhim xayrin maxdubi alayhim wala daaliin allahu yaa rahman yaa rahim si limu 777 ñu bamtuwaat ko dang koy tambalé bésu dimanche si guddi da ngay julli ñent rakka manam kat rakka rakka bu ci nekk nga jang fatiha ben yoon nga jang surat lehlas jurum ñaar yoon manam sept fois nga jël ci kurus def astaghfirullah téeméeri yoon manam 100 fois nga def allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim téeméeri yoon manam salatu ala nabi so paré nga def Bismillahirrahmanirrahim. allahu yaa rahman yaa rahim ci limu 777 bésu dimanche lundi ci guddi nga def alhamdulilahi rabbil alamin allahu yaa rahman yaa rahim ci limu mardi ci guddi nga def rahman rahim allahu yaa rahman yaa rahim ci limu 777 mercredi ci guddi nga def maliki yawmi allahu ya rahman ya rahim ci limu 777 guddi nga def iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahu ya rahman ya rahim ci limu nga def ihdina siratal mustaqim allahu ya rahman ya rahim ci limu nga def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 yal na yàlla fay wasalaam